الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان ajjuma bi passé ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ñu ngi fàttali woon mbokk jullit yi fàttali sunu bopp ay màndarga yu tolloog fukki màndarga ak benn ci màndargay texee di ci ndimbalu yàlla tabaraka wa taala ak kattanam ñu bëgg a fàttalante tey alaamatu saada mandargay texe ay mandarga yoo xam ne ku ko mel dund ko jëfe ko manees naa jàpp kooku day ëllëg bokk na ci ñi nga xam ne dañuy texe texe nag bokkul ñun nuñ ko gisee ak ni ko alquran jàngalee mën nañoo defar sàpp yi ndax am na ñu taxaw te jumaa ji feesul toogaay bi moo moo moo rafetul mbokk yi texe ni ko alquran jàngaleek nun nin ko déggee dafa wuute léeg-léeg nga dégg ku ne bu ma dundee a takk soxna rek texe léeg-léeg nga dégg borom kër gu ne su ma dundee ba sama njàng doom yi yegg rek ma texe léeg-léeg nga dégg ku ne bu ma dundee ba liggéey texe léeg-léeg nga dégg ku ne su ma dundee ba sama njaboot gi ku nekk ma placé ko ci barab texe maanaam ku nekk rek ak li nga jàpp ne moo lay texeel léeg-léeg nga wax ko waaye alquranul karim bam ñuy jàngal ñu texe def ñu wax ne fa man zuhziha ani naar wa udxila al janna faqad faaz borom bi nee na ku faatu ku dee ñu musal la ci safara dugal la aljanna yow yaa texe ndeke texe du tabax du tukki du takk soxna du am liggéey du am alal texe mooy ku dund ci àdduna ba faatu yàlla musal la ci safara dugal la aljanna borom bi nee na yow yaa texe texe googu nag boroom xam-xam yi yàlla nu leen yàlla fayal won ñu ci ay màndarga yoo xam ne ñun danañ ko jéem ci sunu bopp pour nu mel noonu pour bu nu faatoo yàlla musal ñu ci safara dugal nu aljanna ñu doog a texe ñu ne awaluha an yakuna zahidan fi dunya ragiban fi l axira li njëkk ci màndargay texe mooy ab julit bu buggee texe na dëddu àdduna na xemmem alaxira na dëddu àdduna walis ko wan ko ginnaaw alaxira yitteel ko loolu nag nu muy nekkee dëddu àdduna mooy jëfi alaxira da la yitteel xam nga tey alquran ci boppam mu yàlla tabaraka wa taala kàddoom moonu duut baaraam nenu bal tusiruuna alxayata addunia li fi wóor tey mbir mooy àdduna rek ngeen gëm àdduna rek ngeen bëgg nit nag bu buggee texe day wan ginnaaw àdduna jublu alaxira loolu nu muy nekkee mooy jëfi alaxira da lay gënal jëfi àddina jëfi alaxira mooy jaamu yàlla topp yàlla topp Qur'an topp sunna lépp luñ ne nit bu ko defee alaxira yàlla fay ko loolu yitteel la waaye xam ngeen ne tey li ëpp ci ñun mooy àdduna rek moo leen ñor lépp lu ñuy def ci wàllu àdduna mbiru alaxira yi sax ñi mu yitteel lool lool lool lool ñoo ci sonn waaye amaa mbiru àdduna li ëpp ci ñun moom la moo leen tax a nelaw moo tax du ñu nelaw du ñu yendal du ñu fanaanal àdduna nag bis bu nekk mu won nu boppam gis ngeen fii ma taxaw imaamu ratib bu mag bi fi nekkoon wàcc na liggéey yi ba démb lañ ko denc fii fii ma taxaw loolu yàlla moo nuy wan ne li ma wax man yàlla mooy dëgg nii rek par kenn kenn ngeen di ñëw ba fekk si ma man borom bi tabaraka wa taala kon nanu àdduna jàngal bis bu nekk wannu ay mbiram ñaareel ci màndarga texe an takuna nahmatuhu al ibada wa tilawat al quran ab jullit yitteem wala mu war a bokk ci li ko war a yitteel ci àddina mooy jaamu yàlla ab julit na ko jaamu yàlla ñor na ko jaamu yàlla yitteel na góorgóorlu kem talaayal kàttanam ci topp yàlla ak jàng téere yàlla bi tey rek nga gis ay julit yoo xam ne jaamu yàlla yitteelu leen waaye jàng alquran waxi noppi di nga gis julit boo xam ne mokkal na lu ne ci àdduna dégg na français dégg na anglais dégg na espagnol mën na lu ne waaye boo ko nee téere yàlla bi mu ne la loolu nag wax dëgg yàlla fatiha fala rek naa si ak lixlaas rek laa ci man ndax dañ maa teel a génne daara ba ma nekkee xale daal lan ma yóbboon daara rek après dañ ma génne nit ñi sax foofu léeg-léeg nga ni nit ñi dañuy jéem a nax yàlla dañuy am doom ne boo ko dugalee daara ba mu ba mu ubbeeku rek xel mi daanaka day ubbeeku yóbbu ko école su boobaa rek lépp mooy raw parce ko am doom rek daal di ñëw waaw bismillah ñetti at ñeenti at ñu indil la ko ngay góorgóorlu ak moom bis rek ñu ne am na juróom-ñaari at école ubbi na rek nga ñëw ci daara ji rek doo gis kenn arañu nee nañ am nañ lu ñu jullee mokkal nañ fatiha mokkal nañ naasi mokkal nañ falaxi mokkal nañ ixlaas am na lu ñu jullee baax na est-ce que loolu la yàlla wax est-ce que looloo tax téere bi wàcc 114 saar yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne téere bi ñi ko mokkal ñooy sang yàlla ñooy sang yi ci kaw suuf ñooy ahlullah ñooy ñoñi yàlla suñu bëggee gis ñan ñooy ñoñi yàlla ci kaw suuf mooy ñi mokkal téere yàlla bi ahlullah fil ard ñooñu la yonent bi ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ñi gën ci yéen mooy ñi jàng téere boobu jàngalewaat ko kon bu ñu bëggee texe nañu jaamu yàlla yitteel ak jàng téere yàlla bi ñeenteelu màndarga ñetteelu màndarga ci màndargay texe yi qillatu lqawl fi ma la yaxtaaju ilay ab jullit su bëggee texe na nee wax na ferme làmmiñam na ko téye xam ngeen ne loolu tey ci sunu réew mi téye làmmiñ la hawla wala quwata illa billah daanaka nit ñi dañoo boyal seen làmmiñ yi wax guddi wax bëccëg te li ëpp ci wax yi dara du ci jëriñee werante ci làmb werante ci football werante werante ci da nga fekk grand place boo xam ne balaa ngay xam ne réew mi wax da leen a yitteel ñu ne tey combat am na dimanche lundi nit ñi xëy ñu journaux yi jaay jaaykatu journal boo romb day mel ne dëj moo fa xew ñëppay taxaw ku nekk di commentaire ab julit kàddoom gi na ko téye ndax yàlla da ko booleeg ay malaayika ñu koy wott yàlla xamal ko ci qur'an ne maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid li ngay wax yëpp ñu ngi koy bind yonent bi bi muy nettali haddi bi muy nettali aaya boobu di ko jàngal sahaaba yi am ci kenn ku ne ko waaw lépp la ñuy bind mu ne ko yal na la sa yaay ñàkk sakalat ka ummuk yal na la sa yaay ñàkk xanaa xamoo am ak indi bi ngay wax sax ñu ngi koy bind am ak indi ñu ngi koy bind kon julit ne néewal waxam na xool ay kàddoom li ngay wax ñu ngi koy bind yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na li ëpp ci lii dugal nit safara ëllëg mooy xasaidu alsinatihim mooy seen mbuubiti làmmiñ nit kuy wax rek ba ëllëg ñu ne la bëmax biir jahannama nga ni lu ma fi dugal ñu ne la sa làmmiñ bi moo la fi dugal nan xool suñu kàddu nañu contrôler li ñuy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal na ku tee làmmiñam rahimallahu imra'an takallama fa ganima aw sakata fa salima yal na yàlla yërëm waajoo xam ne dafa wax ngir mucc wala mu noppi ngir am jàmm ñeenteel ci màndargay texe yi an yakuna muhafidan ala salawaati alxams ab julit na ko julli juróom yitteel mu wattu ko sàmm ko borom bi tabaraka wa taala wax na ci qur'an hafizu ala salawat wattu leen julli yi borom bi wax na ci qur'an ne inna salata kanat ala almuminina kitaban mawqut julli day dañ koo farataal ci yéen waaye dañ koo utal ay waxtu yonent bi alayhi salatu wasalaam bañ ko laajee jëf yi lan moo ci gën ayul amali afdal mu ne asalaatu ala waqtiha julli ca waxtu wa mbokk yi lislaam yi lii lenn la ci ay màndarga yoo xam ne màndargay texe la ku ko mel dund ko ba faatu borom bi tabaraka wa taala dina la yóbbu ci péyam yu sell yee ci kër gi nga xam ne moom la dikk ñu am melokaan yu mel nii yal na nu yàlla may ñu màng melokaan yooyu aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بقيتي الله تبارك وتعالى جروميل ملكان أن تكون صحبته مع الصالحين أبجلد ندف يتيم ببقيته نعندك نباخ assuhbatu ma salihin utal àndandoo yu baax boo dee góor utal àndandoo yu góor yu baax yu lay soññ ci jaamu yàlla yu lay soññ ci qur'an di la soññ ci sunna yonent alayhi salaatu wassalaam di la soññ ci taxawal julli di la soññ ci woor bisu sunna yi ginnaaw farata yi yonent bi nee na tànn leen ay àndandoo ndax nit ku nekk da ngay jël ci sa àndandoo ay jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla nammee baaxal yàlla da ko won yonent yi ne ko ulaika alladina hada allah fa bi hudahum iqtadi ñii da laa baaxal ñu ngi nii soo bëggee baax royal ñii toppandool ñii kon ku bëgg a baax da ngay ut àndandoo yu baax ut xarit yu baax yu am jikko lislaam inna alqarina bilmuqaarani yaqtadi ndax àndandoo boo gis day roy moroomam kon ku bëgg a am màndargay texe utal àndandoo yu baax bëri na ku fi yàqu tey xale bu fi yàqu ci jamono lu ko yàq ay àndandoo yu bon bu dee jigéen bu dee góor bu dee mag bu dee ndaw sooy ànd ak ñu bon rek léegi nga bon sikk nekku ci juróom-ñaareel ci melokaan yi wane ne ku ko mel texe an yakuna mutawaadi an gayra mutakabbir juróom-ñaareelu melokaan mooy ab jullit na suufe man tawaadaa lillahi rafaahu ku suufee ngir yàlla yàlla yëkkati la ab julit na oyof ab julit na suufee na toroxlul yàlla bu mu rëy ndax rëy mbalaanu yàlla tabaraka wa taala la yonent bi nee na ku ko xëccoog yàlla yàlla tëral la ci kaw suuf képp ku suufe suufelu yonent bi nee na yàlla dina la yëkkati alquran mu ngi wan ci ku kawe waaye suufe lool ñu kawe waaye suufe ci kàttanu yàlla ba jege nit ñi afala yanzuruuna ila al ibili kayfa xuliqat yàlla nee na xool leen gëléem ni ma ko bindee dafa kawe lool waaye benn kàddu rek ak buum gu ñu xëcc gëléem wàcc na nit war ko yéeg su gëléem lankoon ba ñu suufe kon doomu aadama du ko wér du ko war mukk ci àdduna wa ila samaai kayfa rufiat xool leen asamaan ni ko yàlla yëkkatee waaye lu doomu aadama soxla asamaan wàcce wa fi samaai rizqukum wa ma tuwaadun yàlla nee na li ma leen dencal yépp mu ngi asamaan hatta seen wërsëg mu ngi asamaan kon nit lu mu kawe-kawe takk ay ndomba tànk am daraja am alal am am bu mu tax nga kawe suufeel ngir yàlla gis ngeen qaaruuna keroog ba mu amee alal bay toog ci piliyaanu or ay nit di ko yëkkati mu leen di fay yàlla misaal nu am amam ni mu toll nee na caabi magasin yi ay gëléem ñoo ko doon sëf waaye ba mu rëy rëyloo yàlla jox suuf si ndigal na ko wan na ba fi ni wax ak yéen kon ku suufe suufe lu yàlla yëkkati la ku bëgg a texe na nga suufe ndax melokaanu ñi texe la asaamin an yakuna saxiyan kariman juróom-ñetteel ci màndarga texe yi nit na tabe ab julit day tabe ab julit bu ko yàlla mayee nay gestu ay mbokkam yonent bi nee na laysa minna man lam yahtam bi umurul muslimin ku dul yittewoo mbiru julit ñi yonent bi nee na yow bokkoo ci ñun laysa minna man baata shabaan wa jaaruhu jaa'i bokkul ci ñun ku fanaanoo dépasse suba say mbokki julit amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan julit na tebe tabe nay joxe bu ko yàlla dénkee yonent bi nee na xool leen ñi nekk ci seen suuf bu leen xool ñi nekk ci seen kaw julit bu ko yàlla dénkee nay gestu ay mbokkam yonent bi doon na wax abazar abazar booy togg bërilal ñeex mi boo ci mën a maye ci yàpp ndawal lit nga tànk ci ñeex mi maye an yakuna saxiyan kariman ab jullit na tabe waaye na tedd attaase juróom ñetteel ñeenteel an yakuna rahiman bil xalqillah ab jullit na ëmbal jullit yàlla yi yërmande nañu nooyal xol yi nañu yaatal dënn yi nanu tasaare yërmande ci biir jullit ñi irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ci suuf bu ngeen buggee waa asamaan yërëm leen yonent bi nee na benn waaya ngi nii bu yàlla jéggal xaj la may mu naan xaj waa ji dafa maroon naan mu wàcc ci àll bi di wër ndox mu gis teen mu jubal ci teen bi naan ba màndi mu romb ab xaj bu mar bay mar xeer waa ji dem delluwaat ci teen bi root ci baag bi jël dàllam maraakis sànq ci ndox may xaj bi mu naan bi mu defee loolu ba pare mu sant yàlla moom waa ji yàlla tabaraka wa taala daal di koy jéggal kon bu fekkee waa ji xaj la may mu naan yàlla baal ko kon ku may nit mu naan foo jëm nanu yërëm nañu yërëmante tey réew mi dara taxul mu metti lu dul ñàkk a yërmande kuy jaay yaa ngi ci ut juróom fukki bénéfice kuy liggéeyloo nit ñi salaire bu ndaw nga leen di fay lu tuuti te bu doon yow la nga lànk ko kuy luwe da ngay jal yëf yi ba mu kawee tey lool rek moo sonal nit ñi mooy ñàkk yërmande su nit ñi yërëmante woon seen biir li yàlla wàcce tabaraka wa taala ci kay suuf ci yërmandeeg teraanga doyoon na nit ñi séddoo ko waaye da nga gis koo xam ne mi ngi denc cinquante milliards bis mu ne nga dégg ko ci rajo bi cinquante milliards benn milliard rek nit mën na ci dund juróom benn fukki at bés bu nekk muy dépassé cent mille francs mu dund juróom benn fukki at xoola loolu waa ji denc ci quarante cinquante soixante mu bàyyi julliti yàlla yi suñ ko ne lillahi ci jàkka ji wala benn jullit ñoo ne ko wallahi denc ma dara mu génne benn sagaru ñaar fukk wala téeméer jox ko xoolal li mu denc ñàkk yërmande moo tax tey réew mi mel nii ñëpp sonn ñàkk seeni ngor jaay seen diine yor melokaani ay yahud ak ay nasaraan al ashir an yakuna nafian lil xalq jullit na jëriñ xeet bi na jëriñ jullit yi jullit na jëriñ ay julliti mbokkam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xayru naas anfaahum linnaas ki gën ci nit ñi mooy kiy jëriñ jullit yi ki gën ci ay mbokkam mooy ki leen di jëriñ waaye du ki leen di jëriñoo jullit ñi nañu jëriñ seeni mbokk fukkeel ak benn an yakuna dhakiran lil mawt ab jullit bu bëggee dundam jag na bàyyi xel dee dee day tax nga jub mbokk jullit yi ñun ak yéen ñoo ànd kan moo waroon xalaat ne sunu imam bu màgg bii bu tedd bii bu génn àdduna barki démb dina génn àdduna semaine bi kan moo ko waroon xalaat kenn ci ñun waaye yàlla moo programmé noonu mooy dee moom day wër rek ku sa ru ñor rek nga dem loola tax ñu war a nekk ci lu baax yàlla ne dee buy ñëw ci yéen da leen di bett waaw kon nag nañ ko waaj nañ ko préparé yonente bi alayhi salatu wasalaam da doon toog ba caag mu ne tazakkaru almawt fàttaliku leen dee tazakkaru haazimi lazat fàttali leen fàttaliku leen lii tas bànneex yi mooy ñëw fekk borom kër ci këram mu ne coppet borom kër ga bànneex ga jeex mooy ñëw fekk borom alal ci biir mu ne ko cas mooy ñëw fekk kii jëriñ nit ñi mu ne ko cas mooy ñëw fekk yaay ju uuf njaboot mu ne ko cas mooy fekk taawu kër bu uuf kër gi mu ne ko cas kër ga tas njaboot ga tasaaroo yàlla nee na dee leen fàtt yonent bi nee na dee leen fàttaliku kooku kii jeexal bànneex tazakkaru daiman al mawt nanu fàttaliku dee wa murru alal qubuur nañu romb bàmmeel yi mu leer ñu tey ni ñu dëkk ci kër yi suba danañ ñu génne kër yi yóbbu ñu ci bàmmeel yee ñu dëkk fa omar ibnu abdul aziz rahimahullah kaana iza daxala manzilahu جعل يبكي حتى الصباح وفي يوم من الأيام ازداد بكاؤه فلما سمعه الجيران جعلوا يبكون معه عمر بن عبد العزيز kenn la ci ñi baaxoon ba ñu yéegal ko ci xulafa u rasidin da daan def saa yu duggee këram rek toog jooy benn bis mu jooy jooy yu metti ba njabootam yeewu toog di jooy bi leen dëkkandoo yi déggee ñuy jooy ñoom ñoom ñu yeewu toog ci wetam moom ak waa kër gi ak dëkkandoo yi yépp ñuy jooy kenn ci dëkkandoo yi ne ko yarhamuka allahu ya umar ma hadha al buka omar yal na la yàlla yërëm waaw yow omar ibnu abdul aziz sa jooy yi lu ko waral mu ne tasawartu yawma alqiyama damaa toog léegi rek sama xel dem ci yowm alqiyam mu ne fariqun fi ljanna wa fariqun fi sair aljanna nag alaxira nag ni ngeen ko xamee ñaari kër rek la ñee ngi aljanna ñee ngi safara mu ne man omar ibnu abdul aziz xamaguma fan laa bokk ci ban kër laay dugg moo mbokk yi ñun ñu julli si juma ndax xam nañ tey ñan ñan kan ci ñun mooy fanaan kan ci ñun mooy xëy suba fajar ana kan ci ñun moo jëm aljanna ana kan ci ñun moo jëm safara ndax xam nañ loolu est ce que bind nañ ko sunuy jël looloo tax ñu war a góorgóorlu ñu war a jaamu yàlla tabaraka wa taala ñu bañ ko bokkaale ñu war a dendale yàlla kenn ak lenn ñu sëpp sunuy jëf sëpp sunuy jëf ci kanamu borom bi tabaraka wa taala allahuma ixfir lana qabla almawt warhamna inda almawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بوكي تي يالا بون جولي با باري ñu ñaanal sunu imam Ousmane Dem yal na ko yàlla yërëm waaye ñu bañ a yàkkamti incha allah bi iznillah am na benn mbokk buy dugg ci lislaam ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala loolu tamit yàlla bëril ko ajuma bu nekk yàlla may nu lislaam yokk wala bis bu nekk yàlla may nu lislaam yokk yàlla na yàlla yërëm way génn àdduna yi ñun ñi fi des yàlla na yàlla dëgëral nu ba nu mën koo jaamu aqulu qawli aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim branche alcoolique da ngeen am fiki